kon mbokk yi defe naa ne ñu ngi fi nga xam ne moom mooy mairie Patte d'Oie tey Bamba Mboup woote woon fii ci emploi des jeunes jëm ci mbay mi defe naa nag bu ñu waxee mbay fii Sénégal horticulture mooy mbayum dëgg docteur Macoumba Diouf tey moom la ñu jagleeloon bés bi nga xam ne nii moom la Bamba woote woon tey docteur maa ngi lay nuyu di la ziar nga taxaw ak sa xarit sa mbër ki nga may wax ne moo dàq bëri ci làmb ji maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw champion champion yi. am seen waaw. waaw ci booyal moom waaw kan na nga def ah, maa ngi sant yàlla vraiment kontaan nañu bu baax ah, ah. ci seen teewaay ci bés bu am solo bi euh, présence bu champion om rek wane na ne mm-hmm. liñ fi doon def lu am solo la dëgg euh, que du teew ci lu dul lu dul farat ma doon gërëm nag Bamba Cheikh Ahmadou Bamba Mboup mm-hmm. bu nekk président bu FILS FILS mooy euh, formation insertion des lutteurs du Sénégal mooy kuréel guy yongu ci réew ñuy fexe ba euh, bëri am métier waaye am xëy ndax mën ngaa am métier te doo am foo ko exercer am métier am xëy loolu nag ku ko Babacar loolu mooy bëre kon du métier parce que boo ne mbër mi am métier am xëy kon da ngaa jàpp ne mbër bi bëri bu muy def du métier waxin la rek maanaam ndëgër laay la pour euh, mu doon ndolleen ci sa métier. wala mu doon buntu pour nga am métier. fiis nag di liggéey lool fekk ma nit ma ci doo xalaat ay at ci ginnaaw ñoom seen association ñoom loolu rek lay dox man nag li ma doon xëy na doomu béykat doomu séeréer xam cosaanu làmb nga xam ne feetu mbéy mu ñor la daan nekk mooy buñ góobaan ci lañuy commencé di bëre booba cachet bu bari taxuloon ñuy bëre dañ daan bëre pour feetu waaw comme man fàttaliku naa loolu kon bëre comme ni ko am waxee léegi ci suba cosaanam mooy mbéy te ma yore affaire mbéy ci Sénégal wàllu mbéyum dër euh, président la république dénk ma ko mu jaar ci yéene yi ak bëgg-bëggu ministre de l' agriculture ma yore di wax direction de l' horticulture ma jàpp ne ci ñu war a gunge bëri wala bokk ci ñu war a gunge fiis pour mu gunge mbëri pour ñu am métier du man rek mais man ci ñooñu laa bokk ma ne kon naa ñëw bu doon tool la ma béy ci sama waar ci naka mooy horticulture Babacar mbéy mi tax ñuy wax mbër ne demal béy dëgg-dëgg mbéy moomu mooy horticulture parce que mbéy moomu mbay mu am njëriñ la mën a doon mënta doon mbéyum nawet rek béy ñetti weer ñeent toog juróom-ñetti weer loolu du tax menn mbër dem toog ci kaw ga di béy loolu na leer xale yi sax defatuñ ko chaque ay champion yoo xam ne ay mbër waada lañu prouvé nañ fépp kon mbay mi ko mën a tax mu dem dëkk ba def loolu métier ba dugal ci nit ay nit mooy mbéy mi nga xam ne waxtu wu nekk la koy def mbey mi nga xam ne li mu ci am ci hectare bi dafay bari mbéy mi nga xam ne li muy am ci hectare bu ko jaayee li ci luuse dina bari dina woom xeetu mbéy moom moo mën a tax ñu wax champion yi ñu béy. ñu béy moom nag du ñaar du ñett benn rek la mooy horticulture. mooy mbéyum lëjum ak mbéyum fruit ak fleurs yi ngay gis loolu lañ tuddee horticulture mën nag ma ñëw wàll si pour lan pour tàggat leen ci. mbër yi nar a des di def ko ñu tàggat leen ci ñoom ak seen seen seen ñi leen wër ñi leen dina jàppale ci seen tool yooyu ñu tàggat leen ci xeetu mbéy moomu nu ñu koy def mbéyin ma ñaaral bi comme ci nguur gi laa nekk ñu fexe ba li nguur gi di jàppale béykat yi béykatu Sénégal yi ñoom ñu bëra leen ci loxo ñoom mbër yi projet yi fi ne di liggéey ci kaw gi ñu wax leen ñu jàppale leen ñu fexe ba dugalante leen ak ñi nga xam ne ñooy faral di jaay li ñu war a béy mooy commerçant de gros yi mooy distributeurs yi mooy yenn boutique de proximité yi ba bu ñu ñorlee ñu mën a jaxe bi ci mujj mooy ñu fexe ba comme mbay la ñu wax muy horticulture mën nañ ci seen ferme yooyu mën ma tuddee ko ferme intégrée mooy tool boo nga xam ne da nga fay bay di fa sàmm di fa napp waxin la di fa sàmm mooy nga def fa yar fa jur nag xar wala béy wala ginaar di fa napp mooy nga def fa bassin di yar ay jën ñuy wax aquaculture kon tool bu ñuy nappee di fa béyee di fa sàmmee mooy ferm yi may wax nii mooy ferme ferme yooyu nag njëriñam day bari ba nga xam ne jar na mbër investir ci cachet am waaye jar na mbërit financement bi président yëkkati muy quatre cent cinquante milliards nga xam ne jeunes yi ñoo ko tax a jóg te mbëri di ay jeunes buñ la ci financé nga def ko ci horticulture kon lii daal moo waraloon ma dikk fi pour que moyens yi ñu am ñoom ñu investir ñun ñu gunge leen mooy leen nguur gi nar a jàppale ñu dugal ko ci ba ñoom ñëpp ñu dugg ci. am na moo waral fi. am na solo docteur man. na solo ah mu mel ni loolu leer na nañu ëmma maa ngi lay nuyu di la si àddina balaa ak si koor gi. waa jàmbaar ñu ngi leen di balaax di leen balaax. di balaax Sénégal bi yëpp. di leen balaax. di ñaan ñu dugg ci koor gi bisimilah rahmaani rahiim gën ci ay gën ci alhamdulilah yàlla alamin koor gi bañ a nekk suñu mujjantalu koor fekk kay at bare bare bare yàlla jégal suñuy bàkkaar may ñu fan ak wér gi sa digganteeg ma Macoumba Diouf laataa may ñëw ci tey li nga xam ne war a jataay bi. waaw suma ma digganteeg moom yàgg na mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla cofeel bu dëggu mu nekk sama kilifa nekk suma conseil ci lu bari ba tax na li ñuy wax wàllu mbay bi su ma ci amee fit wala ma am sañ-sañ moom la ci wàllu xalaatam bu sell ak conseil te gis ñu si tànk ginnaaw tànk kanam bu lañ ci gis dem contentement bu baax a baax mu nekk nit bu dëggu nit bu bëgg jàmbaar nit boo xam ne amul daray caaxaan doo ko dégg ci caaxaan suy wax boo ko dégg la nga xam ni nit bu dëgg mooy wax waaw nit bu mën nitam tamit en plus gis naa nit ku baax la te conseil ma xalaatam sell na am na solo mu mel ni kon mbayum dër mi kon yow yaa ngi ci bu baax am nga tool maa ngi ci bu baax. dégg naa am nga tool. waaw am <laughs> na fu ñu wax ne am nga tool xam naa sax tool ba fañ ma wax ne fa nga am tool. waa am naa ko maa ngi ci de yaa ngi bay yaa ngi sàmm. waaw maa ngi bay mais bëgg naa mu gën mu gën a mu a ah. waaw te mu ma ciy jàppale bëgg naa mu gën a yaatu. bëgg naa nekk mu nekk ay ay maanaam ay hectares yu bari. Mhm. gis naa ni. Mhm. njariñ la ci ci jeunesse bi waxuma la mbëri sax mais njariñ la ci jeunesse sànq maa ngi koy wax ñun am nañ chance tukki mhm. ñëpp alal bitim réew ay baykat lañ ñu am ay jet privé mhm. am teraanga yor ay nekk multimilliardaire te bëri na ci doomu Sénégal dem immigré bu ñu demee foofu dañuy bay waaw te ñu ngi ci gis seen bopp mhm. bay liggéeyu noobul la mbay am am bi day sell lu nga dundee day sell mhm. ba pare tamit aussi dafa nekk loo xam dafa baax ci sa ci yaram wàllu wér gi yaram yàlla may nañu suuf am nañ ndox am nañ naaj tey boo duggee fii di dem Touba war nga jógee fi di dem Casamance war nga tukki da romb àll boo xam ne oto bi na daw deux heures temps doo jeexal àll bi da ngay xool fa sa bët di yem côté yëpp àll lay doon war nañ ko mën a exploité su amee bëri na ci xale yi jógee fi dugg ci gaal yi di dem wala ñuy dem di immigré dootuñ dem dañuy toog ba xaalis ci mu nga ci gagné cent pour cent te tey boo amee tey ku mel ni docteur Macoumba nga xam ne maanaam lu ci da xelam xarañ na ci lool moom dafa jóg pour jàppale jeunesse bi président bi ñu koy dégg lu mu lu mu lu mu lu mu génnee pour jeunesse bi projet boobu ñu ngi koy ñaan mu nekk tey projet boo xam te aussi du nekk lu ñuy wax mais luy luy jëf la lu bët di tegu la jeunesse bi liggéey lañ bëgg Sénégal jeunesse bi fi nekk bëgg nañ liggéey la moo la fi ne bëgg nañ liggéey mooy xoola tey ni ñuy xaroo ni ñuy ni ñuy duggee ci géej xool nañu pour lan ku tere seen waajur xam nga tey nga nekk doom góor ci famille ñu yaakaar parce que góor boo ko doon rek sonn nga du dëgg mm-hmm. yaakaar bi yóru ci yow nga nekk borom jox nekk nekk der am esprit fighting bëgg a tere say waajur bëgg a tere tere sa askan tey góor bu nekk moo ko bëgg kon tey jeunesse bëgg nañ liggéey mais jeunesse bi tamit bu ñu fàtte ni mbay mi dara bu ko xaalis ah, kii baykat la wala kii ah, moom day baykat wala nag non bay liggéey noobul la ñu ci àdduna bi ay baykat lañ dara ëpp ko xaalis benn liggéey gënu ko jaar yoon dara ëpp ko wér-gu-yaram liggéey am na ci dëkk bi mais nag na président bi jàppale ndaw yi tey docteur Macoumba soo xoolee taxawaayam xam ni pare na te mu ngi dem à cent pour cent parce que man ak moom fu lépp loo gis rek moom jeunesse bi rek njëriñu réew mi rek liggéeykat la na am na ñoo xam ne lañ gën a jàppale parce bu leen jàppalee rek jeunesse bi gis seen bopp gis am na ñoo xam bu leen jàppalee mhm. jeunesse bi gis seen bopp te jeunesse bi mbay liggéey la mbay liggéey gënu ko nekk liggéey noonu waaw nañ prépare ñëpp muy leader yi leader yi ak jeunesse bi ak population bi ñëpp nañu jug ñu liggéey suñu réew beneen bi tam aussi mooy li ma bëgg a xam ni man maa ko seet mooy réew mi ku lekk sànni ku jël dara tour ci mbedd bi dëkk ñu ñoo ko defar. environnement dëkk environnement bi. bëgg naa ñu bàyyi xel parce que des fois mu jëndee ak oto. mu hmm. lekk mu génne benn mbuus ak sànni. te boo demoon Europe tey tey tey tey suba doo ko def. Hmm. danga koy bàyyi ci saa si. Hmm. kon tamit aussi nañ bàyyi xel ci dëkk bi. am na loo xam ne lépp président mënu ko. am na loo xam ne ñun ñoo ko ci war a mun a jàppale. jukko yi tamit aussi nañ ko defaraat. parce que Sénégal. réewu diine la. réew mu am yar la. réewu teggin. mais dama commencé seetlu ni ñu ngi commencé ñàkk lu nga xam ne nii. Mhm. non suñu valeur dëgg ñu ko commencé di ñàkk. ci lu nit neex wax. Mhm. kii maanaam xale yi di juddu yi ñëwaat nañ leen sóor. Mhm. du dëgg. man ba ma bëree Gris Bordeaux mu dóor ma toj suma rekaan. ma yeew gi Sénégal àdduna bi yëpp Sénégal yëpp taf seen jëm. ci laa xam ne man sumay kàddu dama ko war a sama wax dama ko war a xoolal parce que ñu ngi may bàyyi xel. Mm-hmm. kon tamit aussi loolu dafa nekk loo xam ne dem conseil la pour pour nit ñi bàyyi xel ci ni ñuy jëfee. Mm-hmm. parce que ñuy doom ëllëg. Mm-hmm. ñoo ci nar am problème. ñu defaraat jikko yi yéen a jàmm. wér Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. yàlla yàlla may wér ak wér la. waaw yàlla yàlla gën a tàppee xol yi. Sénégal yàlla nekk ci réew yi gën a màgg ci réew yi. mën nañ ko. waaw parce que Sénégal yàlla may na ko xel mu xel mu baax. waaw yàlla may na ko mu am jom. xam nga yàlla may na yàlla daal defal nañu lu rëy ñun ñun sénégalais yi. kon loolu nag moom vraiment ñi ngi ñaan yàlla mu ngi ci daal am ci lu may lu may. dëgg léegi ma jeexal ak yow rek ci lu gàtt rek. da nga signaat beneen contrat. <laughs> na nag lu lu ah. yàlla rek mu sotti ak ah. waaw. ama li ma dégg rëy na di man loo dégg noonu. ah li ma dégg ci sa côté kay rëy na. la. contrat bu bees. waaye ñu ngi ñu ngi ñuy proposé ay combat ñu ngi ko proposé combat mais nag bon xam naa du yàgg dara da nga ci dégg daal. ah waaw da combat bu neex la nag. yàgg lak. non non yàgg Tapha yàgg Balla. doolu doolu daal. combat li ci biir combat yi ñett ñooñu moom kenn la ci lak tafaatin Tine Balla. ak ñeneen ñu bokk ñu ñoo limu sax combat la boo xam ne daal boo xam ne daal su taxawee ah man jàpp naa dégg naa coow a li moom bu taxay coow dina bëri de coow dina bëri combat non di nga bëri dana bëri coow de waaw dina bëri <laughs> ah. neex ñëpp lay doon waaw ah. ah, bi neex ñëpp la moom bis bu rëy la <laughs> léegi la avance bu rëy muy am booy ñaar ban ban la wax avance bu combat gënu ko neex hmm. combat bu neex la combat bu gars yi dina waaw di ñaanal sama rak yàlla may ko booy Niang Boy Niang yàlla ko yàlla may dam bu rëy xalaat nga ne mën na dara ci Balla non amul ku mënul dara su ku mënul dara ah toll ni mbër yi champion la mën na bëre macha allah am na ginnaaw ah. yàgg na bëre combat yu mag ah, ah non combat ñu amuñu xel ñaar de amoo ci xel ñaar non non non xel mu dal yàlla xam na loolu ana Père Gas <laughs> Père mu ngi fi sama père sa père xarit sama père wax dëgg <laughs> xarit ah waaw sa am na solo kontaan bu baax a baax <laughs> àndoon ceeg docteur Macoumba parce que man maay Cheikh Modou Bamba bu président association formation et sélection des Sénégal jot fi def lu yaatu jot nañ fi former ay mbër ci lu yaatu ci sécurité garde corps rapproché ak yeneen mais tey nag ñu jur dugg ci wàllu mbay mi te ku ne xam ne ni mbayu dër mi dafa nekk mbay mu am solo mbayu légumes ak fruits tey nag ñu signé ci protocole de convention docteur Macoumba am yéene quatorze régions Sénégal yëpp fépp fa lutteur nekk rek fexe laa jàppale ba nga dugg ci mbay mi gis si sa bopp. te looloo waraloon jotaay bi di si sant le docteur Macoumba. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk. Mm-hmm. di gërëm champion Eumeu Sène. Mm-hmm. ak Tafatine mi nga xam ne ñëwoon nañ fi. Mm-hmm. ñoom it ñu ngi leen di Pape du Fall. Euh, ak ak ak ak le maire de la Padoa. ñu ngi leen di remercier ñëw ñoom ñëpp. di gën a tàllalaat loxo. ni docteur Macoumba def. di gën a tàllalaat loxo président.